asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, man la Ousmane Dramé bu la réveil des consciences euh, dama ne noppalu warun te yaakaar naa ne noppi moo gën noppalu te ñu nekk une situation catastrophique boo xam ne fi fi mu nu c'est hors développement fii mu nu jëmee ci yàq suñ diine lan jëme fii mu nu jëmee wóor na bépp sénégalais ne du yoon woo xam ne yoon wu am njariñ wala yoon wi tekki ëllëg dara moom la donc tout un Sénégalais est conscient de la situation actuelle de notre pays. Fidel Castro daan na wax naan il n'y solution bu amut problème bu ko Donc, il n'y a aucun problème sans solution. ba tax na comme solution am na jóg ci bopp dafa jot jóg ci bopp dafa jot le changement est inévitable le quand on parle de changement nous parlons de l'unité nationale. Nous parlon du territoire et du patriotisme. ba tax na Ousmane Sonko teg na ci taabal ji benn design boo xam ne buñ ci sukkandoo serait fort possible la solution définitive de notre pays kon mm. bala ngay soppi dara yow ci sa bopp dangay soppiku te Ousmane mënta soppi dara tant que une motivation populaire at amut donc li Ousmane indi ab design architectural la bu teg ñu jàkkaarloog la réussite du Sénégal waaye jéegaguñ benn jéego jëm ci cette dama ne soppi bala koo def yow ci sa bopp dangay ngay soppiku te askan wi neexu ñëw soppi ndax cette maladie chronique bii nga xam ne moo tënk suñuy xel moo nu indil musiba mbàbb kumba mii nga xam ne ci la ñuy dund bun nax suñ bopp bun gént te li Ousmane wax defe na ne yéen ñëpp da ngeen ko bu leen ma jiital kaay lu nu ànd jëf loolu moo leen di wan ne moom ci jëmmi boppam moom dong mun dara ñi man dara mooy ñun ñëpp buñ àndandoo bokk benn xibla jombul ne toutes ces solutions vont venir ndax kenn ku nekk da nga benn portion maanaam kenn ku ne da nga taxan indaale te daa am lobb boo xam ne mën nañ ci sukkandiku jubbanti réew mi dama ne wax naa leen koy yoon ni Ablaye Wade defoon ba jël réew mi ni Macky Sall defoon ba jël réew mi Abdou jot ko jot réew mi ak Senghor te ba njariñ amut dama ne bu defee noonu ba jël réew mi ñu nag ñoo may yem dama ne foog nu soppi ko tey nangoo dégg dëgg te ñu waroo bàyyi Ousmane Ousmane Ousmane Ousmane mbir mi du ay wax mbir mi du ab joxoñe mbir mi gëm ko bëgg réew mi sopp réew mi taxaw ci réew mi te soppi aw doxin la culture des partis politiques baaxul culture parti politique ci réew moo xam ne dictature la mun leen a fexe ba am ca te système bi Ousmane mënta àgg ci moom ba ci dóor marto te jotuñu ci réew mi te jot ci yombut bu ñu waxante dëgg ndax système bi nga xam ne moo géré élection moo fi mas nekk depuis mille huit cent quatre-vingt-seize dama ne mag du coqataan boppam werante yu bari na kee la du kenn ci ñoom lépp lépp askan bi la ngir yàlla bu war suñ bopp war suñ bopp mooy mag nu dëkke gént booy gént loo seen day yaatu loo seen day bari waaye boo xippee doo fekk dara ci say loxo réew mi ay rêve defaru ko mais cette volonté populaire et révolutionnaire mooy marto bi nga xam ne mooy dajji système bi Ousmane dong munu koo dajji bu dee Ousmane képp dama ne munu cee toj ñaari mètre munu ko ñëpp noor jàppandoo yëkkateendoo dóorandoo ginnaaw ban soppi ko te soppi aw doxin un ndax suñ bopp ngir yàlla àdduna bi jeex na tàkk xullin fi àdduna bi toll bërki démb la Sénégal yi xam ne alxuraan dafa aaye ak ngóor jigéen xullin fi àdduna bi toll amul lenn loo xam ne mën naa sotti nun bu ca diine àndut te bërki démb képp lañ yëg ne alal jooju jóge ci banque di ñëw ci yow muy ay bénéfice riba la te li ci suñu borom wax dénk ko góor jigéen bi dañ koy rey te yow mi lekk alal ju bon jooju ci quatre-vingt-quinze pour cent des musulmans yàlla day futti mbuum ba futti sa bi ngeen dóorantey korpeñ ana lu ko jar cette culture maçonnique ce modèle de laïcité mooy li nga xam ne moonu sànq ba lépp lu ñuy def di nduróog médine maçonnique c'est-à-dire une formation création maçonnique booy xool sur l'islam ji xool la franc-maçonnerie xool ni ñuy doxalee sukkandiku ci laïcité bi suñ lépp lépp c'est maçonné ba ci tarixa yi boo jegee lekk boo jegul doo lekk boo bokkee lekk boo soree doo lekk boo ëndee ñun la dellu luutiwaat boo dikkee doo lekk dañuy jël te duñ doyal te it mënul ni dur sa baaraam ni lii ci tarixa bi laa ko jële mënoo dudul ak màggat wala gàmm wala jàng wala cant nga dem ci amaana nga reer amaana doo reer doo lekk ca reere kon bu nax suñ bopp Ousmane bëggul ko ko jay Ousmane bëggul ko koy jay bëgg ko li bëgg yomb na kan ànd soppiku bëgg réew mi taxaw ci réew mi réew mi ñor te lépp loo xam ne daan nan ko jëfe nu bàyyi ko jëfe leneen ndax liñ daan jëfe moo di toroxal réew mi tey kenn jóg nous avons un architecte li man moo xool ni bâtiment bi war a taxawe mu design ab dessin teg waaye nun le peuple le peuple mooy ingénieur yi war a yëkkati tabax bi parfois di architecte bi bind kenn mënu koo liggéey ndax xëy na ciment wa du ko mat wala xëy na wala environnement bi accepté wu ko accepté wu ko yooyu mën naa tax le projet architectural mu soppi ko dama ne eh, bu nax suñ bopp bu nax suñ bopp si Sénégal toll du ay élection moo koy faj tante nañ ci élection présidentielle yi Ousmane a gañe gisul dara élection yi mujj yi gis ngeen ni mu demee réew mépp Ousmane lañ àndal Ousmane dugg ci culture parti politique ana lu ca mucc gis ngeen ko gañe ngeen lu bari waaye ba tey mun leen di jote ci système bi dama ne fokk réew mi jóg le patriotisme révolutionnaire le bii nga xam ne moo war a dajaloo ànd ak xol yi ak xel yi marti yi jóg dama ne tant que defuñu ci gént lañ ne dama ne APR ak PASTEF ak PDS ana lu leen warale ñaari parti yooyu buñ soxlaa xaalis lay Wade day génne mbaa Macky génne te bu Pastef soxla patriote yi ñooy génne seen xaalis teg ci taabal ji waaye loolu képp doyut mbir mi du mbirum xaalis mbir mi mbirum fulla la ak fayda ak am fit ak ngi taxaw futti sa mbubb dóor ci suuf wuti yet foo xar ci sam réew foofu la mbir mi ne ni ko Rwanda defee gis ngeen ko réccu wuñ ko laa Guinée jël nañ saxaar gi lenu àgg fan jëm le Mali gis nga ko àddina bépp a yëngutu dama ne kan bokk jóg Burkina Faso ak Thomas Sankara gis ngeen la Cheikh Anta Diop bëggoon Sékou Touré bëgg ko Nkrumah bëgg ko Olympio bëgg ko Gamal Abdel Nasser bëgg ko Mouammar Kadhafi Modibo Keïta bëgg loolu la askan wi war a bëgg te nag mbir mu ne daam noo koy defee te kat am na ñu ko def jàlla te fépp foo xam ne sa moroom def na fa loxoom reer boo fa defee sa loxo boo ndékkiwul war ngaa mën a añ kenn jóg te fexe unité africaine moo nu may kàttan moo nu may doole mooy tax nu soxlaal kenn dara système bii nag Ousmane mënu koo dajj mais askan wi ci boppam ñu jóg dajj ko te ngeen mooy politique bi te jublu ci réew mi man la Ousmane Dramé bu la réveillé de consciences